Madame Aminata Touré. La procuration, la procuration. non non non dañoo jox procuration oh. waaw waaw waaw dañ leen di teewlu nag euh, am na interruption boo xamante ne am na ci euh, vote bi li ko waral nag mooy euh, procuration boo xamante ne dañ koy laaj l'honorable député Farba Ngom ganaaw ba ñu woowee ki nga xamante ne moo di l'honorable député madame Aminata Touré moom nag nekku fii léegi ki nga xamante ne nag moo di Farba Ngom moo jógoon pour votel ko ñu koy laaj nag li nga xamante ne moo di euh, procuration bi nga xamante ne moom la war a wone laata mu koy euh, votel donc euh, loolu nag moo waral jamono ji pëccoxoo bi nga di gis jamono ji fii ci assemblée nationale mu mel ni rek nag arrêté nañ vote bi en attendant ki nga xamante ne moo di le président de l' assemblée nationale Amadou Maam Mamadou euh, Maam Diop daal di ci euh, jël dogal gis ngeen ko nag ni nga xamante ne noom la ko yenn député yi dare ngir rek ñu jël solution ci loolu xam naa ne nag euh, dinañ ko waxtaanee gis ngeen yenn député yi yi nga xamante ne ñoo nekk ci mouvance présidentielle bi tout comme de l'opposition ñu ngi envahir li nga xamante ne eh Guy Marius Sagna jëlati na urne ba Guy Marius Sagna jëlati na urne ba comme nu mu ko bëggoon defee dëmb moom ak Barthélemy Diaz daal di ànd waaye nag euh, jël na urne bi teg ko fi nga xamante ne moo di palaasam en attendant nag ñu xool mbir yi fu muy mujjee en tout cas actuellement loolooy li nga xamante ne moom ñuy dund jamono ji ci assemblée euh, nationale l'honorable député Guy Marie Sagna daal dinay jël li nga xamante ne moo di euh, urne bi ngir daal di koy euh, yóbbu gis ngeen nag yéen député yi di ko ñaan njekk rek ngir mu daal di delloo li nga xamante ne moo di urne bi ñu wax ne rek nag amaan di yaakaar nañ ne dina nangu waaye fi mu nekk jamono ji moom dafa bañ ngir euh, daal di euh, joxe urne bi li nu mel nag dara waralu ko ñu bamtu ko rek fàttali ne euh, vote par procuration boo xamante ne waroon na am ñoom la ñu daal di contesté lu tax ñu contesté ko nag ci kanam dina gën a leer ah Guy Marius daal di nay delloo urne bi daal di nay delloo urne bi fi nga xamante ne nag ñi yenn député yi donc kim ko jox nag mooy Birame Souleye Diop. bu euh, groupe parlementaire bu yeewi askan wi kon nag mu ngi nii moo jël urne bi finalement euh, moom la ko Guy Marius Sagna daal di jox daal di koy delloo li nga xamante ne moo di urne bi ngir euh, gannaaw ba vote par procuration bi nga xamante ne kii di Farba Ngom bëggoon na ko def au nom de l'honorable député Aminata Touré finalement loolu nag gis ngeen ñi nga xamante ne ñoo di ñoom Ahmed Aydara ak yeneen député yi yi nekkee ci opposition bi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mouvance présidentielle bi naka noonu ñoom ñëpp nag Ibrahima jeeju ñu ngi noonu daal di envahir li nga xamante ne moo di euh, perchoir bi ngir daal di euh, waxtaan ak euh, président assemblée nationale ndaxte ñoom dañuy contester vote par procuration bi nga xamante ne Farba Ngom mu ngi ko bëgg a def au nom de l'honorable député Aminata Touré ci ci gannaaw loolu nag ci la ki nga xamante ne moo di Guy Marius Sagna di jël urne yóbbu ko ba ci palaasam fu mu toog daal di ko fay teg waaye nag bi nga xamante ne ay naataangoom ñaan nañ ko njekk mu koy daal di delloo en la personne de Biram Souley ki nga xamante ne moo di moo jiite groupe parlementaire Yewwi moo ko daan jël ci moom ngir delloo ko kon ñu jàpp ne moom moom euh, yaakaar naa ne dinañ am benn dépassement du nécessité vraiment l'intervention de la gendarmerie pour sécuriser vote bi vraiment foofu la leen di xaare ñu xool nag li nga xamante ne mooy problème bi ci li nga xamante ne moo di vote procuration par procuration maa la ko wax seet ndax li Farba bëgg a def yàllu na maanaa wala war na mën a nekk ou pas su fekkee mënul nekk euh, man je sais pas s'il y aura un impact sur le vote euh, des, des, vice-présidents pas Juste rappeler que euh, am na yeneen vote par procuration yoo xamante ne def nañ ko fi jurul coow lu waral bi jur coow that is question léegi nag dina ñu leeral li nga xamante ne moo waral coow bi lan moo waral euh, député yi yëpp jóg di contester vote par procuration bi nga xamante ne règlement intérieur autorisé na ko mais ci ban anam waaw loolu la ñuy seet ni moo tax euh, ñoom ñu koy régler seen biir euh, puisque la gendarmerie n'intervient pas, c'est quand même euh, rassurant. Ils vont sans doute trouver euh, une solution. Savoir si ce que Farba Gom entend faire va dans le sens du droit, du règlement intérieur ou pas. Si ce n'est pas le cas, forcément, il pourra faire un type de procuration pour, pour Aminata Touré. Et je pense que tout ce... Voilà. Méli Melo euh, Diaruko, euh, pour que ñuy voté rappeler que plusieurs votes par procuration Diédhiou ont été accomplis sans problème. Mais c'est quoi le problème avec euh, ce vote euh, de l'honorable député Aminata Touré par procuration qui devait être accompli par euh, l'honorable député Farbangom, ce que les euh, élus du peuple contestent. Pourquoi ils le contestent alors que le règlement intérieur l'a autorisé Est-ce que la manière dont le député Farbangom veut accomplir ce vote est dans les règles de l'art. C'est ce qu'on voudrait savoir peut sous peu avec les éclairages des élus du peuple. Soit c'est pas normal, ou bien c'est dans l'ordre naturel, dans l'ordre normal il va falloir trancher et le président de l'Assemblée nationale va le faire. Il y a une réglementation qui est euh, bien établie. Il faut que chacun et chacune euh, la respecte. Parce que vraiment, c'est pas c'est pas, pas honorable, c'est pas encore ce qu'on attend. Et puis, euh, est-ce que ce vote de, pourrait avoir un impact sur, sur les résultats Je ne sais pas trop. Ben, Est-ce que ça vaut la peine de, de, de, de faire tout ce, ce bruit-là autour de cette euh, procuration euh, on, on, on, va attendre pour savoir euh, qu'est-ce qui se passe réellement euh, et quelles sont les raisons pour lesquelles euh, Farbangom ne devrait pas pouvoir voter par procuration. Une belle image, Touré. Oui, oui, mais ils sont en train de se concerter. C'est entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont tous le règlement intérieur. Et voilà. S'il y a quelque chose, il y a des choses qui ne peuvent pas passer, ça ne va pas passer, euh, naturellement. Maintenant, euh, qu'est-ce que la coalition Benobo-Koyakar va dire à Farba Ça, c'est le président du groupe parlementaire Omar Youb qui va le faire. il est en train de parler à son collègue de Yewwi, voilà, avec Barthélémy. Et un député de Wallu. Il faut, il faut, euh, il faut que la coalition Benno Bokk Yakaar se concerte peut-être parce que le problème vient de, de, de leurs membres. Euh, qu'est-ce que justement dit les euh, dit la loi, disent les textes. Il va falloir que eux-mêmes qu'ils nous disent pourquoi Fabrehom insiste pour euh, voter. Est-ce qu'il est dans, ce, dans son droit ou pas Mais vraiment, euh, ça recommence. Euh, on n'est pas... On est, on est, on est, voilà, loin de, de l'épilogue. Hein, parce que li ñuy gis nii xalaatuñu woon pour ñoom vote pour ñun vote bi mu ngi jaar yoon tranquillement mais voilà que bu ñu woowee Aminata Touré Farba ba ko voté par procuration waa opposition ne du fi dal lan la texte yi wax suñ fi delluwee rek je pense que léegi wax bi jeex mhm. waaw parce que de toute façon lu lu loi bi mayeewul fii war fi mën a nekk léegi li si des su fekkee comme ñeneen yi nu ñu voté par procuration li far ba def yoon nangu na ko ben dañ ko dañ ko def te jàll si leneen mais wax dëgg yàlla daal doy na waar doy na waar encore euh, mais mais lii tamit ñuy gis nii euh, euh, lu am solo la parce que muy opposition bi tout comme les députés du pouvoir ñoom ñu ngi toog ñu ngi waxtaan seen biir. Mhm. pour essayer déceler fan la problème bi nekk pour trouver une solution donc man je pense que ne en fait lii mënul ñàkk ci assemblée nationale mais saa yu amee rek ah ñu waxtaanee ko bañ a jiital xol yi. Mm-hmm. parce que bu xol après souvent euh, ay euh, résultat bi ngeen bëgg doo leen non mais xel yi moo war a jiitu. merci parce que c'est les textes en fait juste les respecter et puis avancer démb li règlement intérieur bi wax. ci vote bi ci vote bi loi bi la ñu appliqué gars yi tey bi mu amee problème waxtaan nañu ba jubóo basé wu si texte de question répartition des gosses yi maintenant beneen écueil am na mooy mbirum procuration bi lan moo ko waral ah, loolu moo jar a xam ah. et pourquoi ah, euh, insister pour euh, pourquoi en arriver à à je sais pas trop voilà waaw gis nañ euh, Oumar Youm di wax ak ki nga xamante ne moo di Farba essayer euh, di ko raisonner donc euh, li nga wax rek moo moo mooy mooy yoon c'est-à-dire il faut se référer au texte d'abord xool lan la texte wax parce que fii règlement intérieur bu bu bu la donc tout le monde doit se soumettre à ce règlement intérieur et que comme on a l'habitude de dire la loi est applicable erga omnes à l'égard de tous donc tey règlement intérieur bi nga xamante ne moom mooy Euh, féete ñëpp ci kaw nañ ko convoqué d'abord liiral leen en cas de vote par procuration qu'est-ce que la loi prévoit quelles sont les les les, les procédures à respecter pour que ce vote-là soit Euh, euh, comment dirais-je validé par euh, l'Assemblée nationale bu ñu xoolee loolu ba pare après ñu soog a jàll ci leneen. waaw ah, tax ma ne euh, forcément président bi il faut que mu entre en jeu et puis. Euh, delloo ñëpp ci euh, seen place ci waxtaan encore une fois s'il le faut ñu ñu observer beneen suspension de séance comme ni ñu ko waxtaan bi jubo moo gën lii moo gën encore euh, ñu taxaw di gis ay magum jëm di di xëccoo di xuloo si ay affaires yoo xam ne dañ ko dafa leer de ko bind ba pare euh, je pense que li ñu wax depuis suba la deux camps doivent respecter le règlement intérieur et puis avancer. Euh, voilà. Ouais.